moo fi nekk mais def ñu indil yeneen jeexi jaaxa indi lu fi ay problème ci biir armée bi indi problème ci biir police bi indi lu ay détails yi nga xam ni véritablement il faut qu'on s'arrête foofu sax laa lay interpeller parce mhm. que euh, lu jëm ci général Kandé euh, liñ ko def euh, comme attaché militaire fële ca New Delhi jur fi coow moom mu jàpp ne en tant que général chef d'état-major dañ ko dégradé mais le président Macky Sall moo fi def décret boo xam ne ñoom ñooñu rang bi ñu am ci armée wala ci yeneen corps militaire ak yépp Euh, mun nañ leen di yóbbu comme attaché militaire noo gisee euh, dossier wu général Kandé. man xawma général Kandé lu mu wax. Mhm. bugguma dugg ci intimité. Mhm. intimité wu personnalité am bugguma dugg ci li nga xam ni moom la am comme réaction par rapport à sa mais dama lay wax rek ni la. Mhm. bu fekkee ni moom noonu la ko gisee il s'est senti agressé attaqué il s'est senti, il, il, a été frustré par ce, ce machin-là. C'est de plein droit pour deux raisons. nit ki bu la nee sama biir day métti doo ko wax lu tax sa biir di métti nit ki li ko naqadi moom ci yëg-yëgu boppam la on doit respecter ça au-delà de ça c'est un cas atypique de gestion de cadre dans cette armée-là que nit ki nga xam ni dafa def carrière nekk ci benn situation am na li nga xam ni soo ko defee dafay xew mel ni au lieu que nga féliciter ko dafa xaw mel ni da nga dal ci kawam. Kandé ce ne pas n'importe quel général ici Kandé c'est un général particulier chef d'état-major de l'armée de terre loolu folu ko ñu fekk ci benn bureau muy nelaw rek ñu daal ni ko chef d'état-major général de l'armée de l'armée de terre mhm. c'est un homme de terrain qui a marqué sa carrière bi mu nekkee lieutenant ba léegi dan ko xam ci mu nekk un officier opérationnel nekk officier de terrain di liggéey liggéey bu mucc ayib ñu am fi problème mu Casamance depuis plus de quarante ans on est confronté à une situation askan wi di sonn nit ñi nekk ci àll bi ñu nangu seen kër nangu seen i tool nangu seen lépp ñu bari jaar nañ fii dans des position comme commandant de zone fële Ziguinchor chef d'état-major ñu bari le problème est resté entier. Mhm. benn Kandé ñëw il a pris sur lui la responsabilité de porter la guerre en Casamance jëlee fa MFDC kooku ci situation bi mu taxaw su demee ba nekk chef d'état-major de l'armée de terre kenn mënul wax ni dañ ko ko may mais am na li nga xam ni dañ ko ko war a respecter man de ku ma ko defoon mu yuuxu. pourquoi parce que damay wane ni man mérité wu ma traitement bi ñun ñëpp noonu la ñu mel traitement bii ñu ko def moom mérité wu ko. Mhm. au contraire suñ ko jëlul woon jëlee foofu yóbbu ko fu gën a kawe. danga naan ma décret bi am na mais décret bi c'est une mise en forme kenn waxul loolu on parle du cas de Kandé qui est un officier qui était chef d'état-major dafa mel ni soo ko jëlee foofu yóbbu ko foofu da ko dégradé. Mhm. da nga ko troxal da nga ko traîner dans la boue aspect boobu il faut pas que ñu il faut que ñu comprendre ni Kandé nit la. ñii nga xam ni dañu ni c'est pas normal di xel la ñu yoree su ñu delloo ci règlement rek ça ne va pas fonctionner. mais ñi wax dañu ne le chef d'état nomme au poste civil et militaire sañ-sañu président la ku ci nekk mu affecté la wala mu changé la. mais yow chef d'état day nommé fii au poste civil et militaire gars yi suñ ci benn pexe balaa muy nommé sax ñu dem Tambacounda wala Goudiri dugg ci biir ay kamb yooyu wut sëriñ pour ñu bañ leen nommé. Hmm. c'est pas vrai non donc nit ñu am nanu point de vue ci liñ leen di nommé. am nañ ci observation yu ñu ciy def le chef d'État on ne peut pas le nier il a compétence à nommer au poste civil et militaire mais nag nanu bàyyi cas bu nekk cas bi mu nekk le cas de Kandé est un cas très particulier surtout ak li ci laxasu lépp c'est un cas particulier nous sommes dans un pays réew kenn du ko foyee te dafa mel ni lii ci biir dafa am yeneen ressentiment ak yeneen détails yu ci dugg ba ñu naan à la limite dans cette histoire là on a cherché à satisfaire le, le MFDC vrai ou pas wax ji day law parce que effectivement Kandé a vaincu le MFDC te on connaît les tendances étroites qu'il y a entre notre actuel premier ministre et le MFDC depuis toujours ah amul wax juñ ci waxul ah oui ah oui amul wax ji wax ji on a il a défendu des thèses extrêmement graves sur la situation de la Casamance sur les rapports entre président Macky Sall ak Casamance sur le le le, le sentiment d'être délaissé le sentiment des Joola d'être pris à part il a défendu il a porté la cause casamançaise de manière très ethniciste defu ko tant que politique mais def ko wax boole ci yeneen ethnie boole ci ñeneen boole ci ñeneen wax fii c'est du clientélisme politique la doon def wala c'est effectivement ça qu'il portait le il a fait toutes ces choses la donc su ñu demee tey ba situation bu mel nii am lui qui n'a jamais voulu wax dara ci Sénégal li nga xam ni dafa jëm ci identité sénégalaise bi Casamance am mu assumer ko moom bay séparer dans son vocable Sénégal ak Casamance. mais c'est constant on sait très bien que en des endroits de discours loolu Ousmane Sonko setalul boppam ku setalul sa bopp nag bu amee. dan lu ñu la soupçonné rek mën nañ ko wax. Mhm. on a soupçonné que effectivement il y a sa main lui derrière l' de Kandé parce que dafa bugg delloo njukkal waa MFDC yi nga xam ni moom il fait du parti pris par rapport à ça et Kandé peut avoir le sentiment d'avoir été sanctionné parce que a touché au MFDC. Mhm. léegi ban opportunité moom la mën a am moom général Kandé day dem par force wala day génn armée su fekkee ne nanguwul affectation bi. xam nga euh, armée ko laal. Mhm. Euh, munoo xam lu mel nii fu muy yem. ah oui pourquoi. oui parce que yow yaa ngi may poser question. Mm-hmm. su doon rek du armée kenn du wax ban opportunité la am wala lii walla laa. Mm-hmm. mais dafa ni armée dafay siège benn endroit bi nga xam ni réew mi yëpp fa la wéeru parce que ñooy sunu doole ñooy sunu gànnaay. Mm-hmm. loolu boo koy traité ci situation politique. da ngay def dànk da nga leen di gérer ba duñ ci waxtaane nii. ba yow doo ma poser question ban Kandé ban choix la am. ça veut dire que il est possible que Kandé puisse se rebeller mais pas en tant que moi commissaire Keita Omar Adji je ne me suis pas rebellé parce que je n'ai pas les moyens d'un Kandé. mais quand on dit que le général chef d'état-major de l'armée de terre se rebelle dafay am beneen connotation bu ci nekk nanu moytu. mais malheureusement il n'est pas le seul général commissaire gis nga président Macky Sall ci magistère am y a eu beaucoup de généraux on parle de plus de quatre-vingts généraux yu nekk ci Sénégal loolu tamit euh, est-ce que ça fait pas désordre le fait de nommer des généraux à tout bout tout va. donc beneen question la par rapport à fii suñu waxtaan centré. Mhm. su ma buggee régler loolu. dafay dafay doon lu doy parce que j'ai pensé à ce nombre de généraux qu'il y a les corps dans la mhm. la gendarmerie dans l'armée mais c'est une situation de fait je crois su suñu génnee fii dinañ ci mën waxata mais lii réel bi fi mu nekk kes ce que nous pose comme problème la situation que nous avons avec le général Kandé qu'est-ce que ça nous pose nous comme problème d'avoir un général bi nga xam ne ñun mën na nañu xalaat ni ñu affecté que du dem waaw suñ ko affecté demul nag c'est une crise nous allons vers une crise parce que c'est un général moo demul fan la taxaw ba dem fan la wéeru ba dem c'est l'armée dans tous les pays du monde c'est comme ça bu ñu bu ñu loolu est-ce que un général ci attitude am rek su défier président de la république du poser problème c'est une crise un général chef